asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu c'est la première fois nag may dugal ojo di dugg ci ligne bi di participer seen liggéey rafet na macha allah ah maîtresse d'un homme marié nag franchement neex na daal loolu daal laa ci mën a wax neex na macha allah en tout cas liñ ciy joué yëpp. ça reflète sur la société lu nit ñi di dund ci société bi la seetaan naa nag épisode bu mujj bi am muy vendredi bi mais bi ma ko seetaanee sama xol dafa jeex nag série yi daw yëpp menn maîtresse d'un laa ci seetaan te youtube laa koy seetaan ndax wax dëgg yàlla duma am temps mais daal bi ma ko seetaane sama xol jeex na ndax wax dëgg yàlla mareem niñ ko nar def man laa je suis pas d'accord c'est vrai Marème des fois day tukk nit waaye tukk ak tooñ du benn parce que yi muy def day neexal kër ndax Marème boo seetee ba seet rek xol bi dara nekku ci dafa nekk ñaareel nag xaritu jëkkëram mu tax saa su ne fu muy nekk rek dafa war di xumb gis ngeen euh, laal la li mu xas ba def ci xelam rek moo ko sonal mais su ma nekkoon moom lii am am na métti na nag moom ci xol moom franchement ndax man bi mu tollee ci période yooyu c'est vrai que man ci série bi man Marème mooy sama fans far nag ayut <laughs> mère jaañ moo ko wax ku mu neex nga far moom dafa far ci laal la man ma far ci Marème Marème moom dama ko bëgg xam nga lu tax ma bëgg ko moom du tricher te elle franche moom du woote lu nekk ci moom elle est contrairement à Lalla Lalla mun naa ne rekk miikar la ab genre jinax yooyu noonu bëgguma jaar ci tur bi di matt di ëf te lool di ko ju baax li ma ci gën a metti bu gën ma cee metti mooy nuuraa mi muy jël di ko impliqué ca doxaanu baayam nag doxaanu Cheikh Jaañ ba ca Marème ba tey mu ko ci impliqué xale bu ndaw nga koy wan wax ni ko papaam dafay doxaan ba di ko wax li muy def ak lu muy defa surtout nag bi mu naan ko boo yegee ci étage bi yaam maam dangay dem nga taxaw sa buntu néegu papa nga ne ko papa papa papa def semblant comme si que mi ngi fa xam nga loo rafetut may dellu siwaat ci épisode dernier épisode bu vendredi bi parce que Marème moom déjà liko ko dal ñi metti na mais man dama naa nit ñi amuñu compassion ci Marème c'est vrai Marème elle a des défauts mais elle a aussi des qualités défaut daal lenn la mooy que ni moom dafay tukku daal des fois te tuq nag mënut a ñàkk daal mënu cee ñàkk parce que wax dëgg yàlla ay wuju moom bu ñu nekkee ci kër kii di ñoddi jàmm kii di ñoodi ay noonu la mën la mën a demee te wax dëgg yàlla Marème dafa woote jàmm ba sonn parce que woote jàmm mënut a weesu bi mu ni laala dafa dof billaahi affaire bi da koo métti ndax da koo naqarlu mu jaaxle te man leer na ma lee ni yàlla ni su doon ne Marème moo def moo dof day neex laala te loolu du du jikko ju ndax nit ki lu bon boo ko yéenewul sa bopp waroo ko yéene keneen loolu muy benn preuve bi beneen bi euh, laal euh, Marème jënd ay fruits ne da koy yóbbul euh, laal la mère Diagne daal da koy dëpp loolu lépp xol bu rafetam te gis nga nit ki soo baaxee rek da ngay nekk dof ndax à chaque fois dañuy bëgg di la duppe di bëgg a jaar sa kaw ndax boo baaxee booy def doo xalaat Marème tey mun naa ne mbaaxam ak xolam bu rafet ak jàppee nit koom boppam moo ko yóbbee lii mu nekkee maire euh, bi mu demee di ko seeti maire bi daal di koy dëpploo mu tourné ci loolu def benn action waaye boobu mel na xolam sedd na ndax Lalla Marème Lalla dafa sàcc ayam tàng na teg bu doon jigéen bu mënt doonoo nit sa xol foofu dina fa egg mu fekk leen fa te en plus li gën a yokk tax mu réagir noonu c'est parce que Cheikh da koo saaga ci kanamu moroomu jéegam kanamu gani te su bàyyi moom mu jàll kon laala da koy gën a moo tax mu réagir noonu bi mu xamee nag def na foofu erreur mu xëy di wutaat mu jël téléphone am di woo laala di wax ak moom mais laala daf ko ñàkk kersa traité ko de n'importe quoi lu nekk mu di ko wax li mu ci gën a metti nag chaque jour muy du koy dëkk ci noppam naan ko Euh, ngeen baal ma ci kàddu bi de naan ko caga nga caga nga xam nga loo tamit neexul ci xol te li ma ci gën a soof ba gën ma cee soof caga boobu muy dëkk di ko waxal Marème ah di ko ko wax sans cesse franchement loolu dafa waroon a jeex mais dem mais vendredi ma ma seetaane épisode bi ñu gis que ni kat laala ka li mu doon wax ah mu ngi bëgg a nekk dëgg mais dama am lu ma metti mais Marème man duma ko ci blâmer du ma ne rafetlu naa métier bi mu doon def de ndax man julit laa te sama diine mayuma ko waaye gis nga julit julit dina dina sàcc jullit dina rey nit jullit dina tux dina naan dina cagatu it waaye julit du fen te Marème Dial du fen lu mu def suba ba ngoon boo ko laajee day metti rek waaye dina ko wax xaw ma nag lu ko poussé mu def loolu ci ci film bi nag je parle à propos de ce film ci biir film bi man laay wax xawma lu ko ci poussé mu ko doon def ndax Marème boo seetloo situation familiale am moom yaayam dafa amee dépression te benn rakku yaayam moo fa nekk amut góor ci kër ga ñaari jigéen te mun naa ne daanaka benn jigéen la rek ndax kenn ka wérut àndut tax xelam ka fa wér muy mooy rakku yaayam bi ñoom kan moo leen di dundal kan moo leen di fayal foofu ñu nekk ku leen di fayal courant ak ndox mais Marème di leen ko fayal heureusement moom changé na ndax mun naa ne lim doon def naqadi koo tax mu jóge France daw ñëw Sénégal ma ne gis ngeen si nga àddina bi métti na métti ba nga xamante ne nii képp ko yoroon lu ne gàññ di fajsee bu mu gàcce saa yoo amee soxla nga dem faje ko sa bopp wallaahi doo jël doo dagg sa yàpp yaram bi di ko saam di ko jaay fii ku amoon lu la gënal wallaahi doo jàpp la fa sës fii ku amoon lu la neex doo war di jaay sa bopp li tax mu def ko mën xaw ma ko ça va venir peut-être après dina ñëw parce que dina gën a am ay éclaircissement dina gën a leer mais nit ñi nañ dawal tuuti yërmaande ndax Marème boo xoolee film bi kenn kenn kenn presque bëggu ko ci bu weesoo Cheikh Diagne ak peut-être quelque amis wam mais luy jëm ci côté siyam goroom bëgg ko wu jëm bëgg ko xaritu wu jëm bëgg ko te man balaa maa dee nit ñi naan Marème moo andi ay moo andi ay moo andi ay mais nan la andi ay Marème kay ñoo dina jàmm ba sonn laala moo bëggul jàmm te Marème moom def kat la nëbbu ko nee na carrément man damay def xam nga senegal lii moo ko yàq nit ki dalay signal dina reewal te boo wonee ginnaaw mu jël paaka di la jam mooy li gën a bon te jikko jooju la laal laala yor Marème nag yoru jikko boobu mën naa ne tey jii de Marème moo gën a yoru jikko jullit kalaal la donte am na jikko yu ma filim yëpp ne jullit dina ko mel waaye du fen te laala dafay fen ndax laala ngeen baal ma na ci kàddu gi ndax laala fi la sosul lu ne weng ne da ko woo xas ba saaga waale yaayam maire bi tamit mu nekk guy euh, nekk woyamante guy ga safur laalo jàppale ko ci fen yi ne dafa tension dafa yéeg ndax saaga bi mu ko saaga mais heureusement Marème Cheikh dafa ñëw dal ko Marème bu amutoon audio yooyu noonu kon mun naa ne mariage fa lay jaaree basadew ba foofu mais muy boole loolu lépp di ko muñ rafetal lépp suy ñoo di kaf ak laala Lalla di fas kanamam loolu moo tax Marème à chaque fois mu koy yëngal di ko tooñ parce que dafa bëgg xol bi toj mu nekk ak moom ci jàmm wër na rasulillahi làll bu fekki woon kanamam gee séq ak maram jàmb barki sëriñ tuuba xaadim rasul wër na yàlla kon billaahi maram du am ak làll benn problème maram lim def yëpp bëggoon lu baax ak jàmb ci kër gi moo taxoon mu koy def meew di woon pour dara ku nekk ngi wax nag naan laal la pataaralam pataaralam gi lii moo taxoon mais une chose est sûre et certaine dinaa leen xamal leen di gis ngeen secret bi ngeen xamal Marème laal la sax laay wax fas yéene ko ci chantage loo pour di ko utiliser bu mu sonal boppam ndax euh, Marème Dial loolu mooy tax mu xàddi parce que man dama ko gëm Marème elle est digne te elle est fière tey boo ñëwoon fekk góor ci kawam sax danaa la góor moo nekk sama kaw mais bu dee laal la danaa la noo du góor la jigéen la bu déguisé wu en góor loolu la lay wax. foofu rek lañ amee différencement loolu moo tax Marème ma faa ko dana metti ci moom de te yàlla ku bëgg teg la nat waaye billaahi lalla bu yaakaaree ne lii nii defetu Marème la mu ngi nax ci boppam benn conseil kay laa jox Marème comme moom el a toujours été intelligente intelligence am bii bu mu ñëw ba fii mu koy jaar de gauche wala mu koy jaar de droite na ànd ak xel ak dal intelligence am bi na ko utiliser na teel a wax Cheikh li xew mu explique ko li tax mu def ko bu dee Cheikh bëgg na ko dina ko jàpp ndax fii gis nañ fi ay doomu jullit yu bari ampagaay fekk jigéen buy jaay boppam ñu jël ko sang bam set tuubal ko takk ko def ko seen soxna di leen jaamuloo yàlla dëkkal leen te di leen dëkkoo kon Marème Dial mii war na mérito chance boobu noonu te man sax dama gis Marème nu mu mel sax ba nit ñi di ko sikkal Marème daa elle est sympa amul benn problème man moo wax dëgg yàlla sëyu ma de xale laa mais wallaahi tey man bu ma demoon ba am wuj man je ne vais pas fouiller dans son passé parce que lu dul dëgg du yàgg su fekkee ne moom honnêtut tôt ou tard dina feeñi bu feeñul fii feeñ fee rek même man l'essentiel lii neexal sama diggante man sama jëkkër danaa ko def moom lu ko neex na def kook sama yoon nekku ci jeeg pur nag jeg dëgg noonu lay doxalee mais lalla ni mu bëgg a doxalee par rapport ak ma loolu du jikkooy jeeg tàppet la su motoon li mu doon dana fil danaa fil ba mu ne ko ah mënu ko passé wu madame sama yoon nekku ci sama présent wala sama futur moom un importance wala soit mu xamal ko loolu di ko ko menacer peut-être mais pas mu bëgg ko utiliser pour yàq digganteem ak Cheikh ndax gis nga yàlla suñu borom bi doomu aadama bi gën a yées mooy doomu aadama bi nga xam dafay fekk ñaari diggante yu tax mu ñagasal ko te euh, laala na ci tànk yooyu noonu la nekk ndax moom dafa bëgg yàq diggante Marème ak Cheikh Diagne te loolu moom duma ci ànd euh, merci beaucoup sama gars yi euh, message boobu noonu laa amoon rek pour di ko euh, jàllale waa Lu Xew TV message boobu laa amoon di ko jàllale Lalla nag na xam ni Marème Dial moo ko gën a capable te man leer na ma leer yàlla ne gis nga Lalla li xamal tey ji Marème su doon ne Marème moo ko xamalal la wallaahi du ko eggee Cheikh du ko ko mus a eggee du ko ko wax du ko sax jéem a lijjanti moom amul temps boobu noonu Marème dafa maandu de Marème ku maandu la moom yoonam nekkul ci problème mu jàmbur nit ñi nag nañu bàyyi di wax naan ay Marème xamoon na ne lii dina ko dal xamoon na ne dina payalee pot cassé ndax dafa ñëw fekk jabaru euh, jëkkëru jàmbur mu ànd ak jëkkëram patati patata mel ni comme si laal dafa mel noo xamante ne moom daal amul droit wujje mais laal mooy kan wujje ba mu neex nag moo nekk julit sëye góoru jullit te góoru jullit nag am na droit takk ba ñeenti soxna ak takkoo nag laala wax kon bàyyi leen fi ngeen di teg laal la te eggu fa mais jigéenu jullit mais jéeg pur mooy am wujju di wujje nattu boppam nag xam ba xam fes na place am waa wala déet gis nga madame dafa ñoo def no stress laala mii lim xoolal nim ni mel laala dafa jekk macha allah di rianke pur sang nag Marème ñëw tamit gën koo jongoma mais loolu dérangé wul Marème à chaque fois Marème mu ngi xool lu neex Cheikh Diagne te Marème du mës a am problème ak Cheikh jaañ ba dem di ko nettali keneen mais Cheikh Diagne fu Lalla jotee ak moom rek bu xëyee dem nettali ji ko lañu war a bàyyi loolu lañu war a bàyyi en tout cas une dernière chose Marème Dial man daa su ma doon yow nga fexe woo Cheikh mi mii nga expliqué ko comme ça sax bu ko defee mu xamaale se situation yaay nga expliqué ko li ci poussé wax dëgg yàlla ñàkkoo jom ndax boo ñàkkoon jom danga ca gën a nekk rek waaye daf bëgg bëgg changer moo tax mu jaral la nga jóge France ñëw ba dakaar changer vie te bu doon ne sax dangaa continuer di ci nekk ba ngay nekk ak Cheikh Diagne munoon ngay nekk ak yeneen go su waxee nga ne ko takk gooma waaye defoo ko dangaa gore de dangaa gore nag wax dëgg yàlla ku ko ku wax leneen lu dul li ma wax moom dalaa contre des fois nag nga def nag yoo xamante ne dama lay mere man bu ma soñoon daal laala mais <laughs> nga bàyyi ko ginnaaw moom bëggul jàmb keroog yaa ko fekk mu feebar nga ñëw di wax jàmm mu añi ay baal tooñ nag tooñ baaxut man su ma soñoon daal nga maanu ci ay yëfam wax dëgg yàlla nit ki moom bu doon bëgg na jàmm wax nga benn wax nga ñaar wax nga ñett waaye saa su mu toroxal la su ma soñoon nga maanu ci ay yëfam loolu rek mooy sacet cat baax ba mu ëpp yenn mbaaxe na bu yàggee dof lañ koy jàppee danga xam naa nag yow da nga da nga nekk ku franche da nga jël sa bopp jàppee ko comme ñëpp loolu moo tax waaye dama bëgg nga xam ne yow xol bi nga yor Lalla yoru ko Lalla xol bu bon a tax mu ne pat pataaral yow nag sa xol bonut moo tax lu ci fees rek nga génne ko en tout cas gën a la góorgóor te nga gën a xam fooy teg say tànk nit ñaa ngi naan dangaa vulgaire dangaa vulgaire mais nit ñi comprendre ñu woon li tax euh, langage vulgaire yi. léegi dinañ comprendre lu tax parce que suñ ne euh, Marème dafa vulgaire ñu ñëw ñu ne ah moom kat dans le passé da doon boppam kon jikko jooj noonu moom mooy nekkaat ci moom mais une chose es sur et certaine wallaahi gis nga secret bu feeñee ba Cheikh Diagne xam ba li ñuy lijjanti li ñuy lijjanti wallaahi ci épisode yi ñëw Marème ne du ngeen ko déggati mu wax wax ju vulgaire dina changé ba ngeen dina gën a changé li ñuy naan euh, fu ndox du bàyyi yoonam te fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp neew ma jikko jooju dafa nekk ci moom ba tey de mais langage bi mun munta changé te il fallait que mu doxalee nii pour nit ñi mën a comprendre lu tax kat Marème vulgaire ndax tey buy waxee nii ñu ñëw ani beneen épisode ni ah Marème kat daan la li la doon def te milieu bi boo ci nekkee na sa wax du mën a set foog wax ji di ñagas looloo taxoon nag man ci li ma yaakaar moo taxoon Marème di waxee nii mais seetaan leen rek incha allah Marème du am defet de bu dee ami defet de du yàgg te Marème dina changer li man maa leen ko wax Cheikh bu dee dëgg na Marème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dina ko baal te man leen leena man leen yaay Cheikh bu woowee Marème du ko laaj Marème du fen dana ko ne waaw maa ko def wala da ko teel a wala dina ko njëkk a wax lim daan def ak li tax mu koy def xaw ma xamit xaw ma kan ak ñaawaayam boobu ki bu ñu bokkoon kër dama koy rey ale caaw ala ah, la PM Ndiaye awo buuru këru Cheikh Diagne <laughs> ëpp na awo de mooy mag te mag bu njëkk ba lu baax moo taxoon ñu koy wax ndax mag mooy ñëw baax ak jiitu ba tax rakk bu ñuy baax waaye laala day ni ngay doxalee man de nawuma ko duma la juge nag parce que lam saf moom kakama co ko xam te li metti yow yaa xam waaye daal une chose est sûre certaine chaque jour nit a ngi def ñaaw teef suñu borom bi di ci teg bëtam mën ko weer te weeru ko yow nag doomu aadama nit njaay ak i noppam roxoo wàlliw roxoo lenn nga ne yow yaa koy weral sa bopp ah yàlla de ku ne xam na li mu wax ci ku ko bëgg a jiitu ci ay mbiram waaye leen de xam xamal naa la ko xam nga lu may ragal preuve yi ngay utiliser contre Marème mu tourner këpp ci sa kaw ba pare gën a metti nag moo tax si nga maanu dafa baax maanu dafa baax de te nit du fuyee ci paasi jàmbur pour yàq digganteem ak nit boo demee sax après yow ci futur Marème dana la xamal lu ne weng lum la war a mën a waxal waaye leer na ma ne du la ko waxal ndax loolu di jikkoom Marème dafa maanu dafa direct dafa franche dafa honnête te du tricher yow nag lima limalu Marème yépp ne mu ngi ci yoom ne moom du ko def yow danga koy def laala yow honnêtoo yow maanuwoo da ngay tricher te doo wone li nekk ci sa xol dangay rek à chaque fois te loolu di koy nit ku baax ah en tout cas daal maneem dey lépp loo yaakaar ni mën nga ko def pour nuir ko sa bopp nga def te danga koy natt ci yow tey ji bu doon yow yaa am passé bi mareem am doo bëgg ku la def nii wala tey nga am njaboot bu am passé bu am passé bi Marème am doo bëgg ku doxaleek moom nii de kon nag boo nattee dàll mu ëpp la rek bu ko nattal keneen sër boo ko jëlee woddoo ko jotu la rek bul bu ko jéema woddal keneen loolu jar na jar na sóoraale ok merci beaucoup ñu fanaan ak jàmm